ndax lu am solo la cest à réew lii rek lañ ciy sàkku mooy ku gis lu baax nga baax ku gis leneen mais dama koy revenir maanaam charte de mission texte la ci constitution bi président bi mu ñëwee à la président 300 charte de mission la fa fekk 45 la ci fal te 45 ci fal xam nga ñan la mooy les coordonnateurs CIPES départemental les coordonnateurs CIPES départemental avant ñu leen di fal charte mission ñoo ngi ci mission à la présidence mooy président dafa woote woon ne weer wu nekk samedi ba ci njëkk dafa bëgg ñu seetal réew mi waa CIPES boobu ñu koy doon coordonné ñi leen jiite ñoom lañ leen falal ay sat de mission loolu benn la ci beneen bi ma ci rebondir muy justice bi bi mu ñëw di wax ci justice bi dafa fàtte ne président bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy réforme judiciaire ba pare defu ko nag comme ni ko ak euh, l'ancien président Macky Sall defee woon mooy bi ñu defee euh, loi ba pare bi mu doon liggéeyloo Amadou Makhtar Mbow yàlla na ko yàlla yërëm mu ne man la maay président damay xool li ma neex ma jël ko li ma neexul ma bàyyi ko mais président daf ne lépp lu ngeen wax ci justice bi ànd naa ci. non non non loolu bi ñu bi ñu falee fal gi gis naa benn affiche bu ñu porté ne CIPES dañuy def euh, déclaration wala dañuy def point de presse bi ma wooyee seen président Madiaw mu ne ma yëguma ko loolu fake news la woon. quand même président woowoon na woowaat nañu presse bi ba ne waroon. ko doon def la ñi ko doon def. mais ñi ko doon man a jàpp ba léegi ñun identifié ñu leen xamuñu la ah ki leen jiite ne moom ci la bokkoon yëgu ko woon xamul ñan ñoo ko doon def Pastef identifié wu loon ñan ñoo defoon affiche boobu ak ñan ñoo bëggoon def point de presse bu ko defoon ba la euh, ma daaneel bañ a monopoliser appel à la candidature aussi. suñ ko defee dañuy violer constitution bi pour l'instant. parce que. dafa war a jaar ci ñaari euh, voie doo ko mën a jàll. mooy la voie référendaire wala assemblée nationale. te assemblée nationale amuñu fa majorité ba fa yóbbu loi pour voter ko mu jàll bañ fa yóbboo ministre de finance pour ñu bañ a arriéraat ci yooyu euh, yaakaar naa loolu mooy lu ma noté woon bu dee ministre yi ngay wax cest jàpp naa ne réew moom li ci solo mooy ministre portefeuille te ba léegi yaakaar naa 25 ministres portefeuille yi yokkuñ ci kenn. ministre conseil nag moom président mun na la romb ci mbedd bi sax sa xelam dal la mu jàpp ne sa mun na ko conseil loolu moom doo siégé conseil des ministres te yaakaar naa amul budget booy exécuté hmm. ak amul benn charge booy yooyu moom hmm. euh, nekkul lu garaaw bu dee ci wàllu justice bi tamit mën naa ci remoniraat ci bi ñu ñëwee bu ñu neexoon mun nañu woo sénégalais yi ci hmm. euh, mën hëju président Macky Sall defoon muy ay ay ay ay ay woo leen ci ay justice yu ñàkk fayda di leen wooy ci ay ay nuñ ko tuddee woon sax ñoom buñ ñëwee ci Karim Wade ja euh, traque biennal acquis mais ñun au lieu que traque biennal acquis mais dañoo wax ne réduction des comptes réduction des comptes jàpp naa ne. mais tur yi changé rek de waaye. dama nekk lu tur yi ñoo changé. non non non bu ma di nga xam du benn. <laughs> xam nga su wax te daaneelu ma day nekk benn. réduction des comptes jàpp naa ne même moom war na koo nangu. réduction des comptes mooy lan ak traque de biens mooy lan. Hmm. traque de biens mooy da nga yor sa téléphone bii ma woo ne la kaay wax ma foo ko jëlee kaay wax ma noo ko amee. mën naa am fàtte nga sa facture li nga ko jënde woon mën naa am Dubaay bi mooy traque de biens mal acquis dañ lay ba pare doog laa wax kaay layal sa bopp reddition des comptes nag dañ la dénkoon dañuy ñëw ne liñ la dénkoon ci la ñu audit bu la ay audit jàppee ñu jàpp la fii may waxee yow am na koo xam ne dafa joxe caution 28 ñu bàyyi ko. am na koo xam ne dafa ko. am na koo xam ne proposé na joxe 500 millions susis na ko 1 milliard ngay joxe parce que dañoo jàpp ne yow yaay tëdd fii li ñu wër yaa nekkoon ci kanam. kon ñooñu nangoo remboursé te ñu leen ci kaso bi kon jàpp naa ne ñooñu li ñu doon def muy réduction de compte gëstu nañ ba avant ñu teg si ñun loxo man Ousmane Sonko moo wax si làmmiñam sama nopp biir palais mu ne ma koo gis ñu jàpp ko ci réew mi bu ñu publier li tax ñu jàpp ko benn Sénégalais du ci contesté te man wax naa ko bii mooy sama ñaareel yoon wax naa ko wal fajiri dama koy waxaat fii képp ku ma gis ñu jàppale ci réew mi te jaay doole tax bu ñu wootee manifestation damay dem pour jàppale ji de pour jàppale jërëjëf Abdou Diakhaté Saliou euh, communication Pastef